وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صوت الإسلام برنامج ديني تقدمه الأئمة والعلماء بالسنغال وفي الميكروفون الإمام عثمان صار وفي تدريس الإمام الأجي إمام بابكر جب والأستاذ علي فاي الإخوة والأخوات المشاهدون asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu imaam asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ustaaz asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi jàkkaarloo ñun gannaaw bi ñu leen nuyoo ndokkee leen ñaana leen jàmm di disaar yéen seen waxtaan yi nga xam ne moo di kàddu lislaam di ñaanal euh, njiitu réew mi ak ñi koy jàppale yëpp waaye njiitu kër gi di RTS ak ñi koy jàppale. waaye ak sunu techniciens yu góor yi ak yu jigéen yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci biir waxtaan bi yëpp nag di ñaanal ki nga xam ne it mooy directeur euh, institut islamique bi di Alaaji docteur Thierno Ka ak imam euh, Mor Diakhaté ak euh, ki nga xam ne mooy Xaadim mbay ñoom ñëpp rek di ñaan jàmm ci biir kàddu l'islam di ñaan kàddu l'islam gi yëpp yàlla boole ñu jàmm ji nga xam ne moom de mooy doxal àddina yépp nag rawatina sunum réew bëgg nañu yàlla may ñu jàmm ba fu jàmm jóge rek yàlla jiital ko ba mu ak si Sénégal yëpp jàmmal ñi jiitee réew mi yëpp ak ñeen di jàppale waaye jàmmal ñi di kilifay diine yéeg ak kilifay aada yëpp waaye nag ak imaam yi ulama yëpp yàlla maa leen jàmm Sénégal dina naan nag jëm ca euh, kanam te nag ñi ànd ak ñun ci waxtaan yi moo di euh, Adja euh, Daba Kébé di madame aussi ak eh, Jargay Mbay di eh, madame eh, Guèye di jëkkëram ni tudd Saïd Guèye waaye ak ki nga xam ne moom ñoo di mooy Ibrahima Ibrahima ak ki nga xam ne Abu Mbow ak Abu Ann ak Alpha Ba ak Seynabu Guèye waaye Moussa Niang ak Malick Tall waaye ak ki nga xam ne moo di Ndoy ki nga xam ne mooy bu na bu na kundul waaye ñoom ñëpp rek ñuy ànd ak ñun ñëpp di leen ñaanal jàmm ci seen biir kaddu euh, l'islam kon kaddu lam di siyaani man ak yéen ci waxtaan wi xam ngeen ne ci waxtu ñu euh, bi ñu génn ñu ngi àndoon ak yéen ci li nga xam ne moo di aju màkk waaye ba léegi itamit aju màkk jeexagul waaye li nga xam ne di cay ànd itamit ci biir aju màkk gi ak euh, li nga xam ne mooy ku dimul màkk yi tamit warteef yi nga xam ne moo di tabaski loolu yëpp dañ ci dikk ak yéen kon nag mbokk yi li imaam bismillah li nga di mbokk yi bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Baay Usmaan ñoo ngi dellu di la nuyuwaat baax di la ziyaarawaat di ñaan suñu borom defal la tawfiq di ziyaar Oustaz Alioune Faye moom it di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiqu ilaahi bokk ci ndaw yi nga xamante ne bi mag ñi am nañ ci ñoom yaakaar yal na eggale ak ndawam bi jaahi muhammadin alayhi salatu wasalaam ba Ousmane dellu di ndokkelaate ujaat yi yal na leen yàlla defal xajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura waaye di leen fàttali ni bu ñu demee ci barab yooyu bu ñu fàttee ñaanal réew mi mm. waaye Ousmane xubbul watani min al iman nit ñi ñi ngi naan xadis la ak du xadis waaye wax la joo xamante ne wax ju set la mm-hmm. wax ju xel mën a nangu la bëgg réew mi mhm. ci gëm yàlla la bokk ndax nit mën na tànnal mën mën naa tànnal boppam dàll tànnal boppam yére waaye tànnal boppam fu mu juddoo nun nag yàlla moo dogal ñu ay sénégalais amul lu réew mi barab boo xamante ne soo fa demee dana naan loo fa ñaan yàlla nangu ko bu ngeen demee bu leen fàtti réew mi Seydina Alhaji Abdoulahi Thiaw yàlla yàlla yokki leeram nekkoon xalifa général des Layènes danaan wax naan soo yéegee ci ak gaal gaal gi di yëngu sa ëmb ne ca bul ñaan sa ëmb mucc danga naan gaal gi yàlla mucc su gaal gi mucc sa ëmb mucc kon ñun ci gaal gi la nu ne nanu naan réew mii yàlla subhanahu wa taala ñaan fi jam waaye man senegal yàlla def na seen ay mag ñoo xamante ni bii yàlla dafa am kashf yu mu leen defal euh, Oustaz Alioune nit ñi dañuy wax naan boo demee Màkka kaaba gi loo xam da koy gis du loin da ngay dox mu yàgg rek mu ne jëmee ci sa kanam foofu nag boo dëgërul mën nga am loo àndal ñu wax la leen boo ko ne jàkk loo fa ñaan yàlla may la ko Baye Ousmane bi weesu yaa ngi wax ñaan gu am solo waaye sénégalais mooy faral def lu ko yomb rek mu jàpp ne amul njariñ mooy rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba nar ñaan la goo xamante ni gu matale la waaye nun jàpp na ni ba ni jàng école arabe man ak oustaz mi moom la njëkk a jàng moom la njëkk a mokkal mm-hmm. instant ah ñaan gi de sama doom gi mokkal na ko mm-hmm. kon taxul mu am doole mais mooy ñaan gi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala moo ko bind ci alquran ñaan gënu koo foor ci lépp la texe fii ci àdduna texe fa nu jëm bu ëllëgee yàlla fégal la sawara nit loolu lay wut loolu yàlla geeg taraawix yeeg nakk nelaw geeg woor geeg moytu jigéen ñeeg def ci lu baax yëpp lenn képp nga bëgg mooy texe ci àdduna texe ci àlaxira fekku ci sawara yàlla tënkal ko ci genu ñaan bu leen jàpp ne dafa yomb ba ngeen tax jàpp ni ngeen wut lu garaaw sénégalais daa bëgg bu wut ay tur yàlla di wut ay yaa bëlxalloo yaa bëlballoos ak yaa tëfalloos ak yaa lëlaloos yooyu yooyu yàlla dox ci yàlla duna wutal lu simple mooy rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba naar sooy wër kaaba nga di ko wax bul jàpp ne sama sët mokkal na ko te du ma moroomam kon am na lu gën a yéeme rawatina bàyyi na ruknul yamani wal hajarul aswad waaw ruknul yamani ak hajarul aswad diggante boobu nga di ko fa ñaan waaye boo ko dee ñaan aussi nga am yaqin yàlla dana nangul bu léegi nag dafa am mel na mag mu ne woon ci réew muy cheikhul islam alhaji ibrahima ñas mm-hmm. barahama yàlla nu ko yàlla fayal ñu ngi ziare xalifaam cheikh ahmed tidiane ñas mm-hmm. di ko yalla yàlla di fi yàggati andi wér di ziare cheikh mamoun isa diop mm-hmm. sunu sëriñ sunu soppe du sunu xarit du sunu wëlëre bàyyi ousmane mag ñi danoo déggoon xam nga dégg dafa am solo dafa mel ni dafa am taalib yi ñëw ci moom naan ko sëriñ bi ko dem màkk ba gis kaaba gi da ñaan di ñaan lee mu leen eh kaay ma tënkal leen ko képp gis kaaba gi boo nekkee ci àll xaal boobu nga ne na nga wax yàlla ne ko yàlla maa ngi lay ñaan fii ma gisee kaaba gi ba fi may faatoo lu ma fi ñaante yàlla ko nangu wallaahi xam ne li xew yow yàlla maa ngi lay ñaan fii ma gisee kaaba gi ba bu ma lay wuyu si bépp allahuma boo xati yàlla na ko yàlla na ko nangu kon mag ñi yàlla na leen yàlla fayal kon ñii dem màkka bu nu fàtte ñaan réew mi ñaan yàlla def stabilité ñaan yàlla def boole xol yi mu nekk benn ñaan li nga xamante ni mooy koom yàlla subhanahu wa taala def ko ci mim réew buñ jógee ci aj gi ba Ousmane ñoo ngi dégg mal tabaski sunna Seydina Ibrahima la sunna la soo xamante ni Baye Ousmane ku ko am war na la ko amul wàcc na la dëgg la waa fa Baye Ousmane ko am war na la oustaz waaye ku ko amul wàcc na la ku tabaskiwul bàyyil xel ni Seydina Muhammad Rasulullah wasallam ñaari xar la tëll ne bii man Seydina Muhammad Rasulullahi ak sama soxna ak samay doom ren di teg ne tëral beneen xar ne bii man Seydina Muhammad Rasulullahi ak ku amul tabaski sama xeet ba adunay tukki ba adunay tukki waaw Ousmane Rasulullahi tabaski la ak nga tabaski sa bopp bu ñu gën a wóor Rasulullahi tabaski la gën la ak nga tabaski sa bopp bu ñu gën a wóor ku amul am xar nag jàppal ni Seydina Muhammad tabaski na la mhm. waaye loolu tolluwaay la tolluwaay la dañ cee dañ cee toll moo tax moo tax Baye Ousmane nit ñi dañoo war a jaamu yàlla ba yëg yàlla mm-hmm. gis nga boo jaamoo yàlla bu am na foo xam boo fa tollee da nga yemali sumbi ak soos mm-hmm, dëgg la mm-hmm. ak soos am na koo xam am na foo xam bu fa tollee ci yàlla xamul perkaal ak jasneer moom li mu sol na mën a jàmm yàlla rek loolu na tolluwaay la kon kilifa yi noo ngi leen soññiwaat tabaski ce n'est pas la fin du monde tabaski bu la jaralee ngay concurrence ci am xar xamoo li xew yàlla nee na maanaam xaru 600000 ak bu 2 millions bu 400 millions laa yemale lan yanaala llaahu luhumuha wala dimaauha walakin yanaluhu taqwa minkum yàlla nee xar mi ngeen tëddi ko rendi duufaay beeg laadum laag tubaabeer laag tapp laag pëlpal laag yàlla nee na xooluma yooyu ndax maa bind xar mi te bu ma neexoon xar mi kat muy napp ma rey ko waaye yàlla nee na bi nga koy tër li nga yëg ci loolu laa xool li nga yëg mooy lan mooy ragal yàlla gi mooy xar mi ma tër bàyyi Ousmane maa ngi moom ñoo bokk nu bind allahu xalaqa kulli dabatin min ma yàlla moo bind xaram yi bind ma tey maa ngi xëy sangu ba set sangaale sama njaboot sance sance sama njaboot moom ma génne ko ci gétt gi jabaram mi ngi ci gétt gi doomam ma ngi ci gétt gi yaay mi ngi ci gétt gi ma tër ko maag samay doom ñu njatt ko ma daas paaka ba mu ñëw ne allahu akbar bismillahi allahu akbar rendi waa léegi bu ma rendee xaram ba deret ne car ba mu fees ba noppi ba commencé wàjji war na yàgg ma ne waa maa xar mi ku ci war a gën a gore xar mi ma tër ndigalal yàlla la digg yàlla yàlla xañ ko am xel ma daan xëy di ko jox am ngooñ xëy suba génn ko ci gétt ko yor paaka mu topp ma ma didi ko ba ci bi ren di ñu lekk ba nopp ma kii daan waaw waxtu wi waxtu wi lan laa war a jàngat mooy xar mi waruma gën a gore xar mi di bu doon nit bu julli jotee day julli su woor jotee day woor xar mi di bu doon nit asalaatu xayru min di ko fekk ci lal xar mi bu doon nit mooy yàlla ndax jëfe yàlla moo tax mu tër ko rey ko kon Baye Ousmane bari na lu def loo xamante ne bii war na cee jàng xel yàlla beneen bi ci des mooy Baye Ousmane nit ñi nañ bàyyi concurrence bi ci xar yi sama xar mi ñaari million laa ko jëlee xaru ñaari million araamul waaye daa jaaduwut xam nga ni da ngay xamee lu aram ak lu jaadu ak lu dagan ak lu jaadu xaru deux millions ku ko am rendi ko araamul amoo bàkkaar waaye daa jaaduwut boo demee daral jëndu xaru cinq cent mille francs waru ko xaru cent mille un million cinq cent yi nga dese nga seet fukki mag yoo xamante ni seen bopp weex na ñu ñu wër daral bi nga toog fi nga toog am na teraanga joo xam bu la ko yàlla defalee mën ngaa wut yàlla ci daral bi te doo sonn oustaz da ngay ànd ak sa benn waay rek mu dawala la nga teer droite topp nit ñi borom yëre bu xonq bee yàgg na ci daral bi de borom sabadoor bee yàgg na ci bi de ki nga àndal nga woo ko ne ko doo wóor ma góor gee wóor ma kee wóor ma kee ñëw nga ci oto bi par ñaar kenn ku nekk nga jox ko luy sa yite xar laay wudde waaye 80 mille laa yor nga yi nga dem ko soble pomme de yi la kan nga ne ko jaru nga di ma xam yàlla xam na ma wallaahi allahu aalam bi imam Moussa Gueye mu imam Moustapha Gueye doon wax allahu aalam oustaz yemul ci xam-xam képp waaye yàlla yàlla sa bopp Baye Ousmane nit ñi dañ tibb ci yi def ko ci compte bàmmeel yi rawatina jamono tabaski te yàlla nag baax na baax koo xamante ni képp ku tabaski nit yàlla bu lay fay du la fay benn xar mm-hmm. waaye yàlla mën na la fay ci maanaam ñaata ñaata kawar la xar mi yor wallaahi kon nit ñi nañu góorgóorlu te xam ne tabaski mm-hmm. ak jaamu yàlla lu sunna soo xamante ni képp ku ko am mm-hmm. war na la waaye ku amul wàcc na la seen blaat yàlla nu ko yàlla fayal mag ñi nee na tabaski daa jot kër gi bari lëx-lëx lool kenn ku ne di di di wax say doléance seen blaat génn gis mbooloo mi dajaloo mu mu ne waaye lu xew mu ne ko bala ay sa tabaski la ñii di wut si waaye ñii dañuy indi mu ne ana ñi tabaski amuñu yëkki seen loxo mu ne war na leen ana ñi amul tabaski am nañu wàcc seen loxo mu ne wàcc mu ne wàcc na leen loolu nag tolluwaay la tolluwaay dañ Sénégal nag Baye Ousmane moo toll foo xamante ni boo yorul boo yorul am xar sa doom ci boppam moo li njëkk a stressé dëgg la ci toll nii bu tabaski jotee Oustaz Alioune mhm. yàlla boo am dëkkandoo boo xam jot naa yeew ah. yàlla boo nekk ci kër gu mag kër gu mag kër gu libu gu mag kenn ku ne yeew te yow yeewagoo mm. loolu wàcc sa doom moo naan papa yow gisaguma xar mi de ah. <laughs> waaw yooyu yooyu dafa doon xeeti jaamu yàlla yoo xamante ñun doonoo dem ba dugg ci aada moo tax mujj noo ñett waaye daal noonu xam ni sunna la soo xamante ni bii ko def am nga ab yiw waaye ku ko defal wàcc la waaye yàlla na mooy ñëpp xar te xar yi nga xamante ni moom la ñuy lewatal yàlla na leen lewatal te yàlla subhanahu wa taala tax mm-hmm. bi jaahi sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla nangul ci barkeb sayidina ibrahima mi nga xamante ni bi mu war a tabaski baay usmaan jërëjëf jërëjëf euh, imam babacar ci waxtaan wi wax nga lu am na solo ndax itamit euh, bi nga waxee lu jëm na ci xar yeeg ak borom dayu yi euh, wax nga lu am na solo ndax borom alal yi war nañu baax xel ñi nga xam ne ñoom day ñooy way niiw yi doole yi te dañu am am ak njaboot ñu yaakaar ne bis bu ne dinañ indi dara seen kër kon nag ñooñu nañ ci baax xel ci dimbalee leen waaye leeral nga bu baax waaye itamit baleen xel ba bëgg tollook ñoom it ci bisu tabaski jaaduwul yow bu loo yàlla dénkee ay millions yu bari Eh, kii yàlla dénk ko lu tolloog ñaar fukki junneem mu dem jënd xarum ñaar fukki junni nga ñëw jënd xarum ñaar fukki yàlla di daaw daaw ci aj màkk gi damaa nekk tabaski bi ne suba damaa nekk tabaski ma jot benn benn benn envoi xaalis mhm. ki ma ko envoyé moo ko day ko simbi da ngaa li mu yónnee daa bëri de mu ne ma xaru tabaski ma ne ko maa ngi ci kaaba gi yow koy xaar ma tawaafal la benn yoon rek mhm. <laughs> ma ne ko yow sama tawaaf ki yow laa ko tuddee <laughs> loolu mooy li ñuy doxal am ngeen dimbali leen ñi ñàkk ñu mën a am xarum tabaski waaye yàlla mii la gënal ci ñu ci wërsëg wanal yàlla ne wërsëg wii ma jox moo ëpp wërsëg wii danaa ci def kon boo jëndee xarum cinq cent mille wala un million jox kenn eh, njëgu xaru fanweeri junni wala deux cent mille loolu la yaa nga ci lii la yàlla sant dégg loolu moo tax eh, koo xam ne kii yàlla jox na la na nga ca wane yàlla jox na la bu ko defee loolu dana dana dimbalee tamit ñi nga xam ne yàlla joxagu leen lu bari ñu bàqeel ne kat ndekete man mi bu ma amee war nañ maa xam mi ak ñi amul ndax loolu yàlla soxla ci doomu aadama yëpp nag waaw wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis kon joxel yàlla cant gi ak xiiwal gi waaye yàlla jox la lu jeex nga dem jëndaw bëy wanda am xar rek nga ne dégg naa imam Babacar Diop nee na Eh, mbir mi kër sunna la rek moom <laughs> eh, jarul jarul yenn ni nañu xam ne sunna la waaye bu boobaa boo ko defee doo du sunna ci yow ndax doo amam tabaski yàlla jox la lu jeex nga dem andi aw ba ci kër gi doo am tabaski de gone yu ndaw yi nag xam naa sax ñoom sax ñoo leen xam ne bay bay ana xar ma am yow lii laan la ba tax nga indi bay jërëjëf imam kon <laughs> ustaas <laughs> ustaas Alioune bismillah li nga indi mbokk yi jàkkaloo ñun ci biir wii di kaddu l'islam alhamdulilah rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayiduna uh, ñu nuyu la bu baax uh, ziar la macha allah ñaanal la yàlla yàlla defal la gudd fan gu ànd ak wér nuyu sëñ Babacar bu baax macha allahu taala kàddu yi mu sànni am na solo yàlla yàlla def ñu dégg ko te mën koo topp ci daraja nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam imaam tey nag dama indi julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla dafa wax ne man yàlla ak samay malaayika ñu ngi julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te bi mu koy wax mu ngi jëfandikoo fi'lu mudaari'a kon yàlla du dañ julli ci njol màkk ak i malaayikaam ba ilaa yawmi diin yàlla ne kon ya ayyuha allazina amanu e yéen ñi ma gëm te nangul ma man yàlla sallu alayhi julli leen ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa kon nga déggee ci aaya bi na julli ci yonent yàlla muhammad farata la mhm. fa tabaarakallahu te am na benn waykat bu wax ne julli ci yonent yàlla Muhammad mooy jaamu yàlla gi nga xam ne soo ko defee ak noo ko defee yàlla nangul la ko xatta mm-hmm. boo amul njàpp soo jullee ci yonent yàlla Muhammad yàlla nangul la ko ndax màggaayu rasulullah ci sunu borom xatta boo taxawee boo toogee nee na fu mu la fekk ak noo mën a mel boo jullee ci yàlla ci yonent yàlla Muhammad rek yàlla nangul la ko yonent bi sallallahu alayhi wax ne ku julli ci man benn yoon mm-hmm. yàlla dina julli ci yow fukki yoon mm-hmm. ku julli ci man fukk yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon mm-hmm. ku julli ci man téeméeri yoon yàlla julli ci yow junni yoon mm-hmm. te nee na ku yàlla julli ci yow junni yoon kooku lam tamu suhu naar bu ëllëgee safara du ko laal mm-hmm. moo tax seydina Muhammad wax ne aksiru min asalaatu alayya fa inna awala ma tasaluuna fi lqabri anni na ngeen di bari lu ngeen di julli ci man ndax bu ëllëgee bu ngeen duggee ci bàmmeel bokk na ci li leen di yàlla di njëkk laaj mooy sama jëmm ji te yonent yàlla Muhammad ne ne képp koo xam ne bëgg nga bu ëllëgee yowmal xiyaam bu tàngoor yu méttee bu xante bi tar fa tabarakallah jàng nañ ko ci suratu euh, ci alquran yowma yafirul maru min axihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yowma idin sha'nun yuxnihi bis ba nga xamee ne nit li muy bëgg-bëgg doomam ak nu muy bëggee soxnaam tabarakallahu ak wayjur ni muy bëggee doom ak doom nu muy bëggee wayjur bis boobu kenn du tal kenn ku ne yaa ngi xool fooy jaar yonent yàlla Muhammad nee na tartar boobu ak mettit woowu ak fi nit ñi toll ci jaaxle ku bëgg ma teel a def intervention régler say problème nga dama aljanna mhm. na nga bari looy julli ci man sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne assalaatu alayya nuurun yawma alqiyama inda zulmati sirat fa aksiru min assalaatu alayya nee na julli ci man leer la ëllëg yawma alqiyama su ngeen demee bay jéggi siraat te mbokk yi siraat benn pont la mos na dégg sama baba Ibrahima Sakho di wax ne benn pont la boo xam ne nga yéeg wàcc mu ne yéeg bi rek dox junni at la wàcc bi dox junni at la te nee na pont bi moo gën a sew kawar meesu jigéen te nee dafa yëngu dafa yëngatu comme boo dóoree jaan yet ni jaan bi yëngatoo noonu la yëngatoo te amul kenn ci jaam yi kuy kuy dox ci kaw suuf wala asamaan tiim la lu dul na di nga jéggi siraat boobu soo ko jéggee jàll yaa ngi biir aljanna Baye Ousmane boo boo tarxiisee nag yaa ngi biir safara yonent yàlla Muhammad ne nag pont boobu nga xam ne dafay lëndëm boole ko sew ak na mu yëngatoo képp koo xam ne bëgg nga caa jaar ci jaarin bu leer fa tabarakallahu na nga bari looy julli ci man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent bi nee na sax yow mi nga xam am aajo sa ajo tëw faju fu ne nga dugg fa mu tëw faju nee na toogaat ak julli ci man boo jullee ci man sayyidina muhammad rek fa tabarakallahu yàlla faj sa aajo kon nga gis ne Baye Ousmane julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa am solo lool ndax dafay leeral xol dafay leeral dënn dafay raxas bàkkaar moom julli ci sayyidina muhammad sa alayhi wasallam dafa yëkkati ay darajey doomu aadama day tax bu ëllëgee nga dëkk ci aljina yi gën a kawe te booy julli ci yonent yàlla Muhammad te bàyyi woo ko da dem ba lépp lu yàlla bind mu am ruux nekk ci àdduna daf lay sopp ndax julli gi ngay julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que nag yàlla moom moo tànn rasulullahi mu gënal ko lu mu am mm-hmm. moo tax mu ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum yàlla nee na su ngeen bëggee ma bëgg leen sopp leen jéggal leen seen i bàkkaar tàbbal leen aljana mais topp leen sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon fa tabarakallahu julli ci rasulillahi xeetu jaamu yàlla la boo xam ne moom la yàlla def moo ki malaayikaam ba pare digal jullit ñi ne dee leen ko def kon fa tabarakallahu nañuy bari lu ñuy julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bari na yeneen tur yi ñuy jël di ko zikar bàyyi fi julli ci yonent yàlla muhammad waaye wallahi ku jàpp woon ci julli ci sayyidina muhammad ak salaatu boo man nag ci salaatu yi nga sax ci booba di ko def ànd ko sellal ko jox ko teggin yamu mu laaj fa tabaarakallah ak orma ba ci laab ga ci yére ga ca palace ba lépp macha allah lépp mat nga def ko ni la ko sante yàlla xam na ne ko ci sax balaa yàgg nga yëg beneen yëg-yëg bu bokkul ak yëg-yëg ba nga daan yëg te nag li am solo mooy nit ki dafa war a fexe ba am connexion ci digganteem ak boroomam ndax soo xesee ba am connexion sa digganteeg sa borom seytaane amatul cër ci yow adduna ak i problème amatul cër ci yow ndax lépp lu ñëw day woyof ci yow ndax yow li ngay gis rek mooy jëmmi sunu borom subhanahu wa taala kon Baye Ousmane la ñu indi woon tey mooy julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne yàlla moo ñu ko diggal ñun jullit ñi ne nañu koy def kon nag obligatoire la ci képp koo xam ne ab jullit la ngay julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jërëjëf euh, imam euh, oustaz euh, Alioune Faye ci kàddu yu rafet yu sell yooyu nga jox bokk yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak ñun ci salaatu ala rawatina bi nga ne salaatu ala nabi moomalee ko benn salaatu da nga rek yàlla ne julli leen ci yonent bi sëlmal leen ci yonent bi nga ne yonent bi nee ku julli ci man benn yàlla julli ci fukk ku julli ci man fukk yàlla julli ci yow téeméer nga julli téeméer yàlla julli ci yow junni boo keroogee yemal xiyaam sa mbagg ndeyjoor ak sama mbagg di ñooy ci dugg bunt bi de du ma la njëkk dugg ñoom ñooy tàmpa nga sa loxo laal fii laal fii ñu dugg biir aljanna waaye yaa baax loo jox bokk yi yàlla fay la yow yaa ni bii xamaguñu xamaguñu lenn li ci suñu borom mm-hmm. xëy rek ne ne yor kurus mm-hmm. nanu noonu moytu yéen tur yàlla ñu utiliser waaw yalla day am zahir am baatin am yoo xam boo koy laa boo koy wér doo doo laal lu am ruux yooyu yëpp da jar a xàmmee mm-hmm. loolu moo waral daanaka am na ndaw ñoo xam fi toll ni tippiku nañu tippitiku nañu fekk boobu dañ fee bàyyi salaatu ala nabi mm-hmm. istixfaar salaatu ala nabi mm-hmm. amul lu ko gën a mën a gaawal nit ñu egg ci yàlla te ndaw nag moom ndaw egg yàlla egg ci yàlla du problème ndaw li mu a def mooy nangoo liggéey ndaw na nangoo liggéey te nangoo jaamu yàlla te du def nag imaam saxir daf ñu daan wax benn bis waaye ba mu ko daanee dafa nekk julli yoroon baaxul ci ndaw mm-hmm. ndaw bu xëy suba day liggéey mm-hmm. kon ñëpp xëy liggéey nga yor ko ci toj toccal naan turu yàlla laa yor mm-hmm. loolu doxalul am réew te ab jullit delloo am réew waaw loolu ci bàyyi xel jërëjëf la euh, li ci imam Saxiir am na keneen koo xam ne du imam Saxiir waaye dafa wax ne bu ngeen gisee quartier boo xam ne bu ñu noddee bu ñu noddee waxtu julli gone yaa fay njëkk nga gis gone yi ëpp ca ña julli mun a xamal ne quartier boobu moom ci wàllu ajir moom say kart yi yi mujj màgg jëm ci kanam lay bokk ndax li wax ndax ndaw daal ndaw liñ ko sant mooy waxtu woowu ñu yoon fekk ma ngi ca liggéey bay kër kër yi waaw da dem ca ba liggéey ba di kër kër yi ndax kër kër googu kat mooy tax nga jot ci wërsëgu yàlla wii ndax loolu la waxoon kii kon euh, sëriñ bi nga xam ne euh, mooy saaraaw yi li ma waxoon mooy ne alxarakatu la tollo ku walakin tuwasilu ilayhi yëngatu bi nga yëngatu du ma bind wërsëg wi nga jot ci waaye yëngatu bi nga yëngatu yi dem moo la yóbbu ci wërsëg wa foo ko yàlla teg kon ndaw day yëngatu day liggéey te jàmm yàlla nu ñu ci yent bi waaye julli ci yent bi tax kenn na nag dof ñu ne da ñu waa ji boobu baaxatul waaye julli ci yent bi moo ko ko def ah déedéet loolu day amul moom xam nga na léegi nag Eh, yàlla moom li gars yi damay wax léegi sama mbokk yi léegi ñu wax ma dara nangam. Mm. ne yàlla ko dogal yàlla ma ne ah, yàlla amul jarbaat. gannaaw moom kenn du ko xeexal. loolu moo tax lu ñu yëkkatee te ne yàlla la. waaye dem loo xam ne loolu wóor ne du yàlla rek. boobu bu nga daal di noppalu. kon ñu ngi leen di gërëm di leen ñaan bu baax baax di leen sant. seen waxtaan bi rafet naa am na solo te tegu na ci place am. yàlla may leen fa nu gudd ànd ak ngeen ànd ak eh, lépp lu yiwu yàlla. Mm. seeni ñaan ci Sénégal Sénégal gën a jëm daal ci kanam ñu yëg ak yokkutu kon kàddu lislaam sàmm ngi ñëw fi mu jeexale euh, di ñaanal man njiitu réew mi ak ñu koy jàppale njiitu kër gi DRCS ak ñu koy jàppale yëpp nag waaye di ñaanal mboolem ñi ànd ak ñoom ñu nekk nag ci Mauritanie alaaji docteur Moussa Taw oustaz Idrissa Taw euh, Boubacar Niang ak Maturé Mbodj Maguette Dieye Baye Maguette Dieye waaye alaaji Samba Sall mu nekk ca Nouadhibou waaye fàttali ñu nekk lañ ca Amérique yëpp nag euh, sëriñ euh, Alaji Fall Dame Fall waaye ak euh, ñi nga xam ne Adja Ndey Guèye Adja Jabu Jabu Guèye di ñaanal jàmm ci biir ëttu leerlu yëpp kon këttu ëttu leerlu mu ngi ñaanal ñëpp rek ma ne rawatina ñu nekk nañu ca Italia Arabie Saoudia waaye Mali ak Mauritanie Guinée Conakry ak Guinée Bissau waaye ak fi nga xam ne moom day moo di fii eh, l'esplanade Mass nekk yëpp nag rawatina mboolem doomu aadama bu jógee Sénégal fu mu nekk di jàmm yàlla kon kaddu sam di wax ba beneen alxames incha allah wa salaamu aleykum